waaw alhamdulilahi rabbil alamin ci mbiru président Ousmane Sonko moom lama ma ca mos wax ci mois de mars bi nga xamante ni woowoon nañ ko ci première fois mm-hmm. ba léegi ca laa nekk mm-hmm. mooy damay wax ne état moom xaj na dafa amul gis-gisu baatin mm-hmm. xaj na saayir rek la am saayir nag ak baatin bokkuñ baatin mooy lu nëbbu mooy loo xamante ni yàlla moo koy jagleleen nit ci ay nalawam mu won ko ko wala ci ak xooleem loolu yàlla la Euh, du ñëpp la koy defal mooy baatin zaahir mhm. nag mooy ñëpp koy gis képp mhm. koo xam ne sil ma rek mhm. suñu wanee zaahir da nga ko gis xañ ne état mbiru zaahir lay gis may su xamoon mbiru baatin ca la ma waxoon yàgg nañ maa topp lool lool lool ci lu bari ci ay at waaye la ma waxoon rek laa wax mooy état munul am mukk ndam ci kaw président Ousmane Sonko loolu lu lu yàlla def ci hasard ci jamono ji àdduna dafa am nu ko yàlla tënkee yow doomu aadama nga man doomu adama la mhm. yàlla du nit ku nekk nar a neex lay àdduna di doxee mhm. yàlla mooy seet àdduna ni ko doxee mhm. te soxna si àdduna at mu jot maanaam fukki at yu jot yàlla dana indi benn nit boo xam ne ci biir jamono wane ko ni kii laa samp fukki at yooyu nag képp kuy mbër soo xamee baatin tuuti doo ko laal mhm. soo fekkee ne zaahir kese nag mën nga koo song waaye doo ci am ndam mhm. léegi nag ñoom yiñ koy yóbbu xam nga procès aji saar bi lañ nekkoon mhm. waxoon naa leen ko fi nee leen su ngeen toppee leneen dina ñëw yeneen yu koy gën a fiña ñi dem ba xam ne ki nga xam ne moo ko tuumaal yóbbu woon ko plainte moom moo taxawal ci làmmiñu boppam taxaw ne Ousmane Sonko laalu taqewut lii dañ ma koo def muy ay audio yoo xam ne su fekkoon ne sax keneen ko def waaye moom moo ko jox sëriñam Mm-hmm. sëriñam bi dem ñi woote justice mm-hmm. ki nga xamante ni mooy wàllu wàllu àtte mm-hmm. ki ko yor ñi jox ko ci ay audio yu leer yaakaar naa loolu set na kon loolu moom côté boobu léegi nag ñu ne kon côté bii moom mënatuñ cee dem léegi nañ jaraat ci beneen côté xam nga mbirul luubal xaalis ci diggante S ak e, S ak e, dama juum ci S ak e rek rek ñu ne ñu ne ñu ne ci lii lañ lay defal waaye ñoom liñ ko yóbboo waxuñ ne amul de maanaam dañ ne ko maanaam ki nga wax ne moo moo def rapport bi defu ko keneen moo ko def ki ko ki def ki ne moo ko def defu ko keneen moo ko def mm-hmm. léegi nag loolu fi lañ ko yóbboo léegi mm-hmm. loolu nan lañ ci mun a amee waaye duñ ci am ndam ba ilaa yawmi diin loolu moom alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. Eh, duñ ci am ndam muy kàddu yoo xamante ne rek kii di eh, sëñ Ibrahima Niass daal di nay yëkkati nag ay kàddu eh, daal di wax ne rek état bi du mës a am ndam ci kaw ki nga xamante ne nag moo di Ousmane Sonko ba tey rek moom am na fi nga xamante ne fa la ko teg lan moo waral foofu laay ñëw ci teguwaay bi laay ñëw fan nga teg ni ki du mës a am ndam ci ki nga xamante xamante rek moo di Ousmane Sonko. xam nga xam nga ñun nitu zaahir rek lañ. Mhm. waaye am na ñu yàlla may tuuti ci baatin. Mhm. ba pare nag te suñ àdduna yëpp ci gëstu lañ ko teg. Mhm. mooy xalwa ak riyaada ak listaxaar def naa ci listaxaar ci ay yoon ci ay weer yu wutee ci ay bis yu wutee Euh, def naa ci listixaar ci woor def naa ci listixaar ci lu dul woor mhm. def naa ci xalwa ci lu woor def naa ci xalwa ci lu dul woor mhm. waaye toujours saa yu ma yàlla di woon it benn wax benn kàddu gi rek la may woon mhm. benn jëmm ji la may woon benn ndogal bi la may woon kon sensé amagul ba léegi saa yu sensé amee rek ma gis ko ci kii rek incha allahu rabbi su ngeen ma su ngeen fi ñëwee ma taxaw wax leen ne leen changement am na mais mm. ba léegi changement amagul yàlla moo yëkkati Ousmane Sonko teg ko ca kaw. Mm-hmm. te loolu kenn mënu ci dara. Mm-hmm. ku nekk ci ñun ñi soo sañoon am pouvoir boobu. mais yàlla mooy tànn lu ko neex mu defee ko loolu. melokaanu Ousmane Sonko ak ni nga xam ne noonu la duggee ci xolu jeunesse bi xolu doomu aadama yi bayre bu saf la wala mayum yàlla la. waaw xam nga loolu. Mm-hmm. Euh, tubaarakallaahu président Ousmane sanko dafa actuellement dafa nekk tombeek jamonoy internet. mais li yàgg na fee xew. Euh, président Lamine Dia euh, ki nga xamante ni moom ñoo fi nekkoon bari nañ. Mhm. président Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade am na jamono euh, jamonoy quatre vingt dix sept quatre vingt dix huit ku fekkee woon loolu président Abdoulaye Wade su jógee woon France di ñëw ñu naan mm-hmm. mars bule mm-hmm. maanaam dina daan am loo xam ne Ousmane Sonko amutoon ko xaj na nag léegi la mbooloo gën a bëri léegi la internet gën a bëri mm-hmm. mais président Abdoulaye Wade su wàccaan aéroport ba war a dugg ci këram daanaka diggante këram ak aéroport soo ko doon daw ci normalement ci oto normalement quinze minutes dix minutes waaye daan na ko daw ay waxtu yu waxtu yu sore ci ay mbooloo mu bari mm. mais yàlla moo dogalee woon noonu léegi nag loolu yëpp yàlla da ko faxas indi lii indi kii nii nga xam ne mooy président Ousmane Sonko moo tax loolu état xaj na xamut waaye wallaay li ci des waaye nag nitu état bi am na ñu ci bari ñuy commencé di tourner loolu moom ñun ay sëriñ lañ ay mm. kilifa lañ mm. am na ñu bari ci ay directeur ay ministère ay nangam pare nañ pour war état fas yéene ànd ak Ousmane Sonko fas yéene Ousmane nu ñu ñoom léegi lan la ñuy def nan la ñuy négocier pour dem ci Ousmane Sonko parce que mm-hmm. dañoo yaakaar ne suñ fa demee directement. Mm-hmm. du leen jël mais ñun ay sëriñ lañ. Mm-hmm. ñoom ñun danañuy wax ñun du ci wax kenn diw ak diw. waaye ñun am na ci woo téléphone. ñuy jëflanteeg ñoom. ñoo xamante ni bëgg yëpp. mooy mooy ñoom nu ñuy def ba. Mhm. am ak relation Ousmane Sonko ba nga xamante ni danañ mën a def loolu. parce que ñoom xam nañ mhm. ñoo xam ne ñu am base lañ ñoo xam ne dañoo am base lool ci seen mhm. dëkk yi ñu nekkee mais toujours soo leen fekkee ci télé bi léeg-léeg man suñu waxee man ba pare ma seetaan leen ci télé bi ñu défendre président Macky man dama naan àdduna kenn xamul lan la. kii ak mm. li may wax ak li muy def. waaye ma mm. xam ne dëgg-dëgg intérêt rek lay toppal. Mm-hmm. looloo tax mais président Macky Sall bis bu duggee coow bari lool waa mm. APR yu ko war. Hmm. loolu maa la ko wax ñu baree bari ñoo xamante ni dañ naan déedéet ñu ko wor bàyyi ko fa dem top topp topp euh, opposition incha allah ñoom bu la woowee ci wàllum ñaan la ñuy wax ak yow wala ci wàllum ni ñuy def ba accès am accès si Ousmane Sonko waaw am na ñoo xamante ni seen wàllu bopp danañ seetlu ci wàllu ñaan hmm. def ñaan mais ñu ci ëpp suñ la waxee ñaan yi danañ la wax ne la a ah, dañoo bëgg 2024 nga xal hmm. xamal ñu nan la ñuy def ak président Macky Sall ndax dana bokk ak su bokkee ndax danañ dem ak lii loolu lañ lay wax mais wa xool li ñu xool li ñu leen di gis li ñu gis rek lañ leen di wax mhm. léegi nag ñoom am na ñoo xam ne ñi ngi jaar ci beneen buntu bu dul président Ousmane Sonko ñi ngi jaar ci yeneen opposant mhm. yoo xam ne préparé nañ pour jaar ci buntu boobu mhm. nu ñuy def pour jaar ci loolu lii ma la wax ni luy am la te lu nit ñi di gis la incha allah duma ci weer kenn nag waaye ñoom ñi déglu sax xam nañ ne tabaarakallahu am na ñu ci digal am na ñoo xamante ni waxtaan nañoo ñoom ci lu bari ci xelaat Mm. ci wàllu yoon nu ñuy def loolu mm. yëpp am na am na ci mm. ñoo xam ne ñu bëgg réew mi lañ am ñoo xam ne jàmmi réew mi jaral na leen loolu ñu nekk ci président Macky Sall mm-hmm. jàmmi réew mi jaral na leen ñi bàyyi Macky Sall mm-hmm. ñun moom am na ci mm-hmm. baarakallah euh, ndax li nga leen di wax ci seet bi moo tax ñuy ëlbatiku bëgg a ànd a Ousmane Sonko euh, ndax seet bi da leen di wan ni Macky Sall du bokk wala dina bokk am déet. waaw maanaam daal Macky Sall dana bokk am du bokk Ousmane sonk am dana bokk am du bokk toujours ñoom liñ may laaj bu ma ko seetloo ci loolu laa leen di wax xaj na nag loolu moom am na loo xam ne nii mbiru secret la ci seen bopp waaye li ma leen di mën a waxal daal mooy président Macky Sall moom jeexal na. du bokk na bokk 2024 wala maanaam maanaam moom daal nguur jeexal na ci. jeexal na maanaam toog ci siège ba. Mm. moom faxas ci lañ toll faxas. saa yu jógee rek da ngay gis ne rawaan nii la ñuy def di faxas. di ko faxas su fekkee ne nit kuy ñëw la ne da ngay gis dañuy dañuy dañuy kii matelas beeg lal ak defar yooyu yëpp la ñuy defar mhm. mais su fekkee ne kuy jeexal la nga gis soo jógee dem rek dañuy faxas mhm. dañuy faxas ngelaw luy doon la muy faxas kon mën nañu jàpp ci wax jooju ne Macky Sall du bokk 2024 dana bokk ak bokk daal mhm. waaye du du réew mi moom pare na fi pour toog saison bi daal moom jeexal na ci incha allah bi xaw ah, kay mooy du bokk rek waaw ba moom jeexal na ci kon yaakaar naa loolu leer na nañ ñi feneen fi ñuy ñëw mooy procès Adji Sarr Ousmane Sonko tamit ñu ngi koy dëgmal mois de mars la ñu wax ñu ngi dégg le 5 mars waaye wóoragul en tout cas daal wax nañ ne mois de mars dinañu euh, commencé li nga xamante ne rek moo di procès boobu procès boobu ku ne xam na ni nga xamante ne noonu la mel ci réew mi ak tolluwaay bi nga xamante ne noonu la mel ci réew mi ak ni ko doomu aadama yi jëlee fii ci réew mi buñ ko tuddee sax euh, fiti yëpp daal di dem euh, tey naka procès boobu s bu waree am lan moo nar xew ci réew mi ndax jàmm dina fi am ah, wala leneen mooy xew ci réew mi. Euh, jàmm dana xew ndax gannaaw xay jàmm fa innama al usri yusran mm-hmm. innama al usri yusra mm-hmm. gannaaw jafe-jafe boo gis rek yomb-yomb moo ciy toog mm-hmm. loolu sama waxu maam waxu alquran la yàlla moo ne alam nashrah laka sadrak wa rek anka wizrak allazi anqada zahrak waaye wa rafahnaa nag laka zikrak fa innama al usri yusran inna maal usri yusra léegi nag inna maal usri yusran fa inna googu maanaam nit ku nekk am na ci looy dund ci àdduna ci ay jafe-jafe soo dundee jafe-jafe pare nag yàlla dana la ubbil ay buntu yomb-yomb Ousmane Sonko ci ay buntu jafe ci la nekk nag yàlla nga koy ubbil buntu yomb-yomb état la leen daan wax la ñuy wax maanaam man surprise bu mag laa ci gis xaj na nag maa ngi ciy gën a gëstu muy gën di dem waaye surprise bu mag laa ci gis mooy loo xamante ni ñoom gémmiñ dana dar dana dana dar nopp wax cuñ ko foogeewut muy ci procès amee ci biir tribunal ba ca lay atte ba di jeexee maanaam bu procès amee waaw maanaam ki nga xam ne mooy tuumaal hmm. mooy taxaw ci baar bi ne lii ak lii kii ak kii ma ko taqal kii ak kii ma ko def loo ba nit ñoom après nag ci média bi la ñuy dem naan dañ koo liggéey ak li muy wax ko fekk la muy wax ñoom nañ seetlu mm-hmm. ñi ngi am na loo xam ne ñi ngi koy nas ci nit ki di ko ko mm-hmm. répéteel mm-hmm. waaye ay suñ xamoon lu ñu yàlla woon ci mbiru Adji saar maanaam ñoom danañ am surprise bu mag ci biir biir man moo tax Ousmane Sonko su ma déggee mu ne du ma wuy ji ma dem dama naan ko waaw dëgg la am na droit maay su doon man gis-gis bi ma day dem taxaw aji saar ci boppam mooy taxaw baar ne lii diwa ma ko defloo lii diwa ma ko defloo lii diwa ma ko defloo lu leer nañ loo xam ne dara du ci am werante mm. xaj na nag su boobaa nag bakkanam fan la ñuy nekk moom. demee procès yi gàcce googu lañ la jëlee. Mm-hmm. maanaam bu ñu demee procès comme ni ko olof di waxee yuuxu yuuxu dana jib fuñ ko foogeewul mm-hmm. Mm-hmm. Eh, yaakaar naa kon eh, loolu leer na kon mun mën ñu jàpp ne jàmm rek kay xew ci réew mi bu boobaa incha allahu rabbi xaj na dina am ay jafe-jafe ci tuur deret gis nañ ci ay deret yu xaw a bari yu wutee ci ay tuuru ci ay mbedd ci lu ñuul ak ci ay koñ Euh, xëj na loolu nañ ci ñaan yàlla rek. Mm-hmm. ñun man moom sama këmtulaay kàttan lépp lu ma mën a def maa ngi koy ñaan yàlla. Mm-hmm. gis naa état bi di def jamono ji loo xam ne xaj na waro nañ koo njëkk a def ci lu yaatu. mooy gis naa ne Kër Massar président Ousmane Sonko dafa woote. Mm-hmm. muy mbooloo mu baari. nit ñi naan li lan la nit ñi ay nit la wala ay jinne lépp di nit. Mm-hmm. après président Macky Sall ñoom ak ay ñooñam daal di oh, oh, oh. tontu ñoom tamit woote. Mm-hmm. ñoom tamit ñi am mbooloo. Mm-hmm. waaye ñoom su ma doon ñoom ci loolu la ñuy gën a sukkandiku ci mbiru Adji Sarr ndax mbiru Adji Sarr yàlla dogal na ci ba pare. loolu dem na ba jeex na. léegi nag ci wàllu réponse boobu ñu dem te réponse boobu nag naa leen waxal leen de. xañ na ci baatin nii nit ñi danañ ñëw waaye tey suñ fa toogoon mbooloo ma yépp toog nit jël micro ne yéen ñii mbooloo mii de mbooloo Macky Sall ku ci ànd ak président Ousmane Sonko yëkkatil sa loxo ca kaw ñu yëkkati ñu compte ñu ne ko ànd ak président Macky Sall yaakaar naa bu mag bu ab ña fa tekkoon daa la wax de soo ko xaajee juróomi yoon ñetti ñeenti yëpp danañ ànd ak président Ousmane Sonko. kon maanaam ñi ñi ñi ñëwoon. ci ñi ñëwoon ci mitingu APR bi waaw maanaam suñ dee téeméeri juróom-ñett fukk yëpp. ay ay ay kii lañ. ay Ousmane Sonko kon ci meeting wu parce que xaalis xam nga mm. jamono ji adduna bi métti na. Mm-hmm. léegi ngay liggéey ba journée bi wàcc. ñu mm-hmm. xëy doo am 1000 francs mm-hmm. nga bëgg ci añ ndékki ci ñu xëy woola ne la kaay jël tiset ak kap dugal la ci kaar dem. ñu jox la sa 5000 wala 2000 francs dëgg dëgg dëgg gor dëgg moo mën a seqi loola. waaye am na ñoo xam ne dañuy seet man gis naa ci ñoo xamante ni ci famille da ngay gis ñu ne la ah. diw dimbal bindal bindal sama doom ji bindal sama doom ji mhm. lu mat ci kër gi juróom ba juróom benn nit ñi bind leen juróom benn nit ku ne deux mille deux mille ñaata la mhm. lool du ay douze mille nangam mu mhm. dugg ci biir kër ga su dee cinq mille cinq mille trente e quelques mille ñoom ñu ne nañ solu tiset yooyu pour encaisser seen xaalis boobu ñoom loolu rek lañ ci rafetal man gis naa ko ci lu ay niti niti niti nit moo tax ñoom ñiy def loolu xaj na dañoo xamut su bëggee mbooloo nag mbooloo mi moom mën naa ñëw waaye su dee ci carte rek la ci kenn